أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci ba tey istuwaaru yaqub ak yusuf ñoo ngi toll ci yusuf natt bi ko yàlla natt woon mu yaroo ci kër buur ci kër premier ministre Égypte waaye soxnaas buur bi bëgg ko ba koy sàkku su ndars bi passé ñoo ngi yemoon ci pexe yi ndaw si tëraloon pour jot ci Yusuf bokkoon na ci dugal ko ci néegu biiram tëj bunt yaak fenêtre yi pour jéem a jot ci Yusuf sunu darsu tey ñu ngi tàmbalee wastabaqa albaaba wastabaqa albaaba ñu njëkkante bunt ba ñoom ñaar ginnaaw ba ko ndaw si fexeele fexeel ko ba mu dugg yónni ko ay mbir yu sori ca biir néeg ba mu fexe ba waa ji dugg ba ca biir mu daal di ko fay fekk fa lamma istaddat muraawadat imraatul aziz li yusuf ba pexe yi taree sàkku gi ëpp xale bi fitnaal ndaw si ca jamono yooyu nag araada an yahraba minha ba ko ndaw si dugalee ci néegu biir ba bëgg a jot ci moom moom yusuf mu nam ma daw rëcc musiba boobu ndaw si bëgg ko dugal wa yabtaida anha mu sori ko fa asraa nahwal baabi mu daal di ñu daal di njëkkante bunt bi ñoom ñaar lu tax ñu njëkkante bunt ba mooy li yan juwa min kaydiha ndax mu mën a mucc ci pexe ndaw si mënoon na wax tey li xale yi góor yi di wax rek tey bokk nak nañ ci to jamono boo xam ne wala waxtu woo xam ne jigéen waxuma la sax jigéen waaye yenn personnalité yi wala yenn am-am yi wala yenn alal yi wala yenn ndombo tànk yi jigéen am ko di ko sàkku ci yow néew na tey nga rëcc ci waaye yusuf alayhi salaam sunu borom aar na ko parce que mission lay dox yonent la ba mu rëcc ci pexe ndaw si njëkkante nañ bunt ba ndax mu mucc ci pexe ndaw si lakin na imraatul aziz waaye soxna buur bi axasat tajri xalfa bi yusuf dawee ndaw si taxawul dafa daw topp ko ndax moom li mu bëgg moom foog mu am ko waaye gis ngeen yusuf daw na loolu moo tax ñu ne mënul nekk nga nekk ci yenn diggante yi te doo def benn effort gis nga yusuf dugal nañ ko foo xam ne mënoon na ne awma fu ma daw jëm bunt yi dañ ko tëj mais daw na ba egg ci bunt bi def na benn effort quand même noonu lañ bëgg ci nit mooy da ngay dem ba jeex ba nga egg fi nga war a yegg su ko defee yàlla def def doog a ñëw mais ah man de damaa dugg rek wax dëgg yàlla tëj nañ bunt yi aw ma pexe non non Yusuf daw na dem ba ca bunt ba waaye ndaw si bàyyiwu ko dafa daw topp ko bi Yusuf ñëwee song bunt bi jàpp ci clé bi di ubbi di di tijji fekk ndaw si dafa rocc caabi yi mu xëcc ci ginnaaw mbubb yuusuf ci ginnaaw mbubb mi ma sol boo xëccee mbubb mi ci ginnaaw fan mooy xotteeku kanam gi mooy xotteeku bu fekkee kanam nga ko xëccee fan mooy xotteeku ginnaaw gi mooy xotteeku yuusuf daw na ba ci bunt bi pour bëgg a génn ndaw si daw topp ci ginnaawam yemu ci mais ba Yusuf yeggee amatul fu mu jëm parce que bunt bi dafa tëju ndaw si bi mu yegg see li mu def rek mooy jàpp ci mbubu Yuusuf xëcc bi mu ko xëccee ni mu ko xëccee di ko xëccee doole yére bi mu soloon daal di xotteeku ci kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ñuy nettali loolu ci suratu yusuf aaya 25 sunu borom mu ne wastabaqal baaba njëkkante nañ buntu ba wa qaddat qamisuhu min duburin semis ma daat nay xotteeku ci ginnaaw yusuf yaani qata at qamisuhu min al xalf semis bi xotteeku na ca ginnaaw wa huna hadasat al mufajaa fii nag la mbetteel mi amee fi mbetteel bi amee foofu la solution amee wa jaa al faraj foofu la solution amee pour mbir mi nag léegi daal di jeex ndeke ñoom ñaar bi ñu dawee song bunt bi jëkkëru ndaw si mu ngi ci ginnaaw beneen côté bi loolu ku mu daloon ci tey ci ñun fii kenn loolay dal bal ci bopp lan lay dóor rek nga pare wala ñu dóor la jaasi ñu fekk la ci jabaru jàmbur waxuma la ñu fekk la ci jabaru jàmbur waaye jabaru premier ministre kër goo xam ne lépp ay garde corps la lépp lañ ko garde bi loolu amee faqad jaa zawjuha jëkkër ji daal di dugg fajatan ci mbetteel ala gayri mawidin ci rendez-vous boo xam ne heure boo xam ne daawul ñëw heure bi ci kër gi lool da nga ciy jànge ne léeg-léeg dinay baax góor di betti njabootam ci waxtu yoo xam ne dañ daan tàmm ne heure bi du fi nekk kër yëpp li koy toj mooy heure yi borom kër gi du fi nekk jigéen ñi xale yeeg yenn caaxaankat yi jarbaat yeeg nangam nangam yeeg kërti kërti nangam suñ xamee ne heure yi borom kër gi du fi nekk lu ëpp mooy seeni tojaange ci heure yooyu lañ koy lañ koy def moo tax gis nga borom kër gi premier ministre heure bii muy heure bii mu ñëw tey ci kër gi ba fekk fi accident bi daf fekk heure boo xam ne du heure bi mu fi daan ñëw la ci kër gi parce que li heure liggéey la ci liggéey la ko daan fekk sunu borom nettali ñu loolu ba tey ci suratu yusuf aaya 25 mu ne wa alqaya sayyidaha ladal baabi fekk nañ seen sang fekk na sangam bi moom yusuf ci buntu ba ba mu doyee ba egg ci buntu ba fekk na fa sangam bi kilifa gi lu xew kon fa ala raghmi min annaha ahkamat إغلاق الأبواب إلا أنها فج... فجأت فوجدت زوجها أمامها وهي تطارد يوسف عليه السلام ndaw si am na mbetteel joxe woon na ndigal nañ tëj buntu yëpp waaye xam nga ne premier ministre bu wàccee ci warukaayam jëm ci këram buntu yi du tëju ndax ñi yor sécurité bi dañuy ubbi porte yëpp am na mbetteel mu fekk jëkkëram ci ginnaaw bunt bi fekk muy dàqu góor muy dàqu yusuf bëgg foo ak moom fa ma kaana min imrati al aziz illa annaha baadarat bi tuhaami lan la ndaw si def comme am na accident boobu am na mbetteel brusquement rek mu daal di accuser mu accusé Yusuf lan la wax qabla an yatta yattahimaha balaa Yusuf di ko accusé moom gaaw na rek accusé Yusuf ci jamono jooju jëkkëram a ngi xool action yi ni mu demee gis na yére baa ngi xotteeku ñoom ñaar ñëpp ñu ngi xiixat ah gis na gis na situation yi mu taxaw moom di xool qaalat moom ndaw si mu ne yàlla dañ ko netteel ba tey ci même saar bi ay 25 qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suu'an illa an yusjana aw azabun alim lan mooy fay lan la ñuy def képp koo xam ne dafa bëggoon def ci jabaru premier ministre lu bon lan lañ ko war a fay moom moo posé question ba pare daal di indi réponse mu ne lu dul ñu mbugal ko wala ñu tëj ko kaso mais am na benn baat bu mu bàyyi mooy rey ko lu tax mu bàyyi baat boobu parce que bëggul ñu rey ko parce que xam na ne lii crime la peine de mort la ñu fekk la ci jabaru premier ministre nga bëgg a am ak moom fo di fo loolu peine de mort la comme xam na ne kii bu affaire bi leeree dañ koy rey te bëggul ñu rey ko dafa bëgg waa ji mu poser question indi réponse lan mooy fayu ku ñu fekk ak jabaru buur mooy nañ ko dóor wala ñu tëj ko xoolal mu nëbb beneen baat bi rapidement mu ne hakaza fi lahzatin inqilaabil wadd foofu nga xam ne mbir yi soppeeku na asbaha zalim mazluman ki ñu tooñoon moom léegi moom moo moom moo tooñ ki ñu tooñoon mooy kan yusuf asbaha zalimu mazluman ndeysaan ki doon tooñ léegi moom lañ tooñ wal bariu muttaham ki setoon moom lañ accusé kan moo doon tooñkat bi mooy soxna si léegi moom lañ tooñ kan moo setoon Yusuf léegi moom lañ tuumaal ah ci jamono boobu ndaw si waxee wax jooju ne nañ ko tëj wala ñu mbugal ko fa qaama Yusuf alayhi salaam yudaafi an nafsi Yusuf tamit défendre boppam yàlla nettali ñu ko ci même saar bi ba tey ci suratu Yusuf ay 25 qaala hiya raawadatni an nafsi mu ne moom moo ma doon sàkku moom mii soxna si moo ma doon sàkku moo bëggoon fo ak man hakaza lam yatakallam kalaaman kasiran benn baat boobu la Yusuf wax waxul wax ju bëri moom moo ma doon sàkku point li ann alxaq laa yaxtaaji ila kasratil kalaam lu tax lu tax Yusuf nekk fanaan non wallahi daf ma doon kii ba di ba wax ju bëri parce que dëgg laajul ngay wax wax ju bari boo nekkee ci dëgg laajul wax ju bari laajul tiit benn baat la wax moom moo ma doon sàkku daal di noppi Yusuf nekk fa di wax wax ju bari nekk fa di di di misaal nekk fa di di di di neexal wax benn baat boobu la wax noppi lan moo am wa shahida shahidun min ahliha benn seede daa di seede te seede ba doon seede ci famille ndaw si la bokk su seede bi bokkoon ci famille Yusuf lu ñuy wax def ko faral waaye yàlla ba mu ñuy nettali dafa ne wa shahida shahidun min ahliha xam nga sa mbokk moom bu la àttee lu nit ñi wax ah du yàlla mbokkam moo ko àtte wa huna jaat an nasru fii la ndimbalu yàlla ñëwee ci yusuf bi shahadati wahidin min ahli imraa kenn ci mbokk ku jigéen gi borom xam-xam yi nag fii wuute nañ nee nañ benn liir la bu doon nàmp ci biir néeg bi ñi ne déedéet benn mag la rek bu am xam-xam xam pexe jigéen wax nañ wax yu bëree bëri mais almuhim yàlla lim ñu nettali mooy am na ku seede histoire bi leeral ko ci mbokki ndaw si la bokk lan la waa ji àttee lan la wax bu dee liir bi la lan la wax moo tax am na ñu ne liir bi la am na sax benn xadis bu ñuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti liir ñoo mus a wax bu koy cité danaan Yuusuf danaan xale bi setaloon Yuusuf liir la moom moo mus a wax ak Isaa ibnu Maryam ak troisième liir bi asaabul uxdud ñu ne ñetti xale yi ñoo musa wax kon bu fekkee liir ba la lan la liir bi wax liir xam ngeen kenn xamu ko muy wax kon bu fekkee liir bi wax na kon dañ koo wax loo mu ne in kaana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkaazibin su fekkee yuusuf mbubbam mi xotteeku dafa xotteeku ci kanam ndaw si moo wax dëgg kon yusuf dafay fen wa in kaanat qamiisuhu qudda min duburin fa kazabat wa huwa min alsaadiqin bu fekkee mbub mi dafa xotteeku ci ginnaaw kon ndaw si day fen yusuf moo wax dëgg bi ñu xoolee mbub mi ñu fekk mbub mi fan la xottee ko kanamam wala ci ginnaaw hein ci ginnaaw la ko xëccee kon mbub mi fan lay xottee ko ci kanam munul nekk ngay xeex ak nit ngeen jàkkaarloo nga jàpp ci chemise bi xëcc kanam gi xotteeku kanam gi moo xotteeku ginnaaw gi moo xotteeku comme kii da ko woon ginnaaw nag muy xëcc fan mooy xotteeku fii mooy xotteeku kanam gi mooy xotteeku ñu xoolee mbubb mi ñu fekk mbubb mi xottee ko ci kanam lan moo xew ci jamono yooyu ñu xam dëgg bi fa lamma raa qamisahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydikunna azim bi jëkkër ji xoolee mu gis mbubb yusuf fa mu xotteeku ndeysaan mu ne yusuf li pexe jigéen la innahu min kaydikunna innahu min kaydikunna ki ñu doon jàngal tafsir bi mu yeggee ci aaya bi mu ne innahu min kaydi kumba wala mu ne kunna mu ne innahu min kaydi kumba jigéen dafa bari pexe mu ne lii seen pexe la yéen jigéen ñi inna kayda kunna azim seen pexe dafa rëy xoola alxuraan di nga jàng ñaari kayd benn kayd bi kaydu seytaan la benn kayd bi kaydu nisa yàlla mu ne wa kaana seytaan daif yàlla mu ne pexe seytaan dafa néew seytaan amul doole waaye mu ne inna kaydi kunna azim yàlla ne pexe seytaane dafa niiw seytaane amul doole kon fii da ngay dégg ñu ne seytaan dafa bëri doole loolu yàlla da koo weddi looy dégg nit ñi ñu naan seytaane dafa am doole yàlla dana seytaane amul doole inna kayda seytaan kaana daifa loolu la yàlla wax seytaane ku yambare la ku néew doole la yàlla kan la wax moo am doole mooy jigéen inna kayda kunna azim bi mu gisee loolu moom boroom kër gi nekk fa di wax wax ju bari di indi polémique parce que bëggul histoire bi siiw parce que bu siiwee moom day am gàcce te nit ñi danañ ko xeeb en tant que premier ministre sa soxna di def yii moo tax benn wax la wax Youssouf mu ne ko ah mu ne ko ah arid an hada Youssouf mu ne ko ah mu ne ko bon lii daal bul ci bàyyi xel lii daal du dara uktum haza nëbb ko uktum haza al amr nëbbal mbir mi bul ci sax waxati wala taskuruhu li ahad bul ko nettali kenn hatta yastati azizu misra an yuhafiza ala mazharihi al ijtimai loolu nag wax na ko ko pour mu mun a garder personnalité am balaa muy génn waaye lu lu mu daal di jàkkaarloog ndaw si bi mu ne Yusuf dama sa yoon occupé sa liggéey bul bul faale lii dafa jàkkaarloog soxnaam nag ne ko wastaghfiri li zambiki innaki kunta min alxaatiin jéggalul yàlla say bàkkaar wastaghfiri li zambika jéggalul say bàkkaar innaki yow ndaw si yow mii kunti nekk nga min alxaatiin defkatu bàkkaar yow yow la yow mii yow yaa moom mbir mi dëgg la olof yi dañ naan bukki bu yebee ponkal ci doxin bala bukki bu yabee ponkal ci moom xam nga xale bu nekk xale bu ndaw nga nekk jaam ci pale ñu yar la fa ba nga màgg nga dem ba am relation ak jabaru buur yenn yi yow la walla jabaru buur bi la ah mag ku mag ki la parce que moo la xeebul moo la bàyyi xel moo la moo la moo la moo la ba lii ñëw ñëw mbokk yi waaye la ñu bëggoon amuñu ko dañu bëggoon def la ñuy def nëpp nëppal ko ñupp ñuppal ko waaye washa alxabaru fil madina mbir mi daal di tasaaroo ci biir dëkk bi nag ñu koy waxtaane ci atelier yi ci biir kër yi ci tànganaa yi ci restaurant yi ci garage fu nekk saa ñu yaakaaree ne mbir mi freiné wu na rek mu gën a dem di tasaaroo dafa gaaw comme ngelaw xam nga doomu aadama yi moom li ñu gaaw mooy tas xabaar tas xabaar doomu aadama moo ci gaaw benn waay doon na seetlu soxnaam mu ñëw génne benn nen mu ne soxna si nen bi de dama koo nen waaye bi ma ko wonee sama sëriñ dafa ne bu tojee rek damay dee nëbbal ma ko bu ko kenn yëg nag te bu mu toj soxna si wa daal di wax benn xaritam ne ko sama nijaay daa nen benn nen mi ngi nii kooku génn daan ne jëkkëru diw daan nen ñaari nen kooku génn daan ne jëkkëru diw daan nen ñetti nen kooku génn daan ne ñeenti nen keneen ki génn ne juróomi nen maanaam kuñ ko wax rek da ngay yokk benn balaa ngoon nen yi ma junni ba waa ji ci boppam tiit dafa ne moom daa nen ndax xabaar bu tasaaroo nit ñi dañoo gaaw ci tas xabaar lu ne ngay dégg bu ñu déggee dara ki ko dégg day dem nettali ko nu dul noonu kooku di yam tamit yokk ci leneen moo tax xabaar boo dégg rek bee boo nga tey gaa yi di wax tasaare xabaar bi lan moo ko tas nag mooy ñiy liggéey ci pale bi mbindaan yi jaam yi garde yi ñoo ko tasaare ba mbir mi daal di dem présidence kër premier ministre la jógee dem présidence egg fu nekk ñépp di ko waxtaane sunu borom subhanahu wa taala mu ñuy nettali loolu ci suratu yusuf aya 30 mu ne wa qaala niswatun fi lmadinati imraatu laziz turaawiduha fataha an nafsihi qad saxafaha hubban wa inna la naraha fi dalalin mubin wa qaalat niswatun fi lmadina jigéen ñi nekk ci biir dëkk bi ville bi nee nañ imraatul aziz day turaawidu fataha an nafsihi jabaru premier ministre ma ngay sàkku jaamam bu góor ci boppam ndaw si day mbëggeelam la mën a tula téye ñun nag gis nañ ko loolu mu def noonu dëgg dëgg dëgg réer weesuwu ko kii dëgg dëgg dëgg dëgg dépassé na nag fa mu waroon a yem dépassé na ay limitam waxuñu sax garde corps waxuñu sax kuy liggéey ci pale bi waaye jaam bi xale bi sa booy bi sa mbindaan bi dem ba mënatoo téye sa bopp ci moom wa bada al xabar yatanaqalu min baytin ila al bayt xabaar bi di tasaaroo jóge ci kër dem ci kër hatta wasala li imraatil aziz ba mbir mi delluwaat nag ci moom soxna si moom ci boppam mi ko defoon ñu ñëw ne ko waayow yow yëg nga li xew mu ne lu xew ñu ne ko addina bi yëpp waxuñu dëkk bi de mais addina bi mu ne ah ñu ne ko yow la ñuy waxtaane ci lan ñu ne ko la nga defoon moom tamit zulay xaalatu doon mu nekk ku doy waar ku dangereux ku bëri pexe ku dul daw res ci li mu bëggoon maanaam lii tey xew bu doon ku am kersa la dootul génn nit yi dootul lekk dootul naan mbiram yépp xalaatam yépp mooy lii na laay def ba mu ba mu ba mu jeex ba mu yëgee loolu moom ndaw si mu ne aboo man la ñuy waxtaane ñu ne ko waaw ñen ñoo may waxtaane mu ne ko nag mbir mi dem na ba ci personnalité état bi seeni jabar ministre yeeg député yeeg sénateur yeeg yow la ñuy waxtaane mu ne amul problème dinaa ko régler loolu la wax ki ko indi doon xabaar bi dinaa ko régler kooku ne ko ah mu ne ko bàyyi ko sama loxo du maa ko defoon mu ne waaw mu ne dinaa ko régler fa lamma sami'at bi makrihinna ba mu déggee seeni mbir arsalat ilayhinna mu daal leen di yónnee message ay invitation d'honneur mu organiser benn fête yónnee leen ay invitation d'honneur ñoom ñëpp kenn desul biñ ñëwee ba ci place bi fête bi sunu borom nee na wa addat lahunna muttaka'an mu laa leen di jox yoo xam ne comme ay pom ak ay mandarine ak orange ak yu demee noonu yi ñuy dagg ak paak banaana ak mu jox leen lekk goo xam ne fokk nga yor paak mu daal di dugal Yuusuf ci biir néeg bi bi dàkkaarloog saal bi Yuusuf dafa rafetoon rek jàmm yàlla bu sanguwul sax dafa rafet bu solowul dafa rafet waxoon nañ leen dars passé na Yuusuf rafetaay bu dee téeméer Yuusuf moo jël juróom fukki yi ñun ñi ci àddina bi yëpp ñu séddoo juróom fukki yi des kon kooku rafet na de mu sang ko préparé ko defar ko mu ne jaam yi nañ ko defar mu préparel ko yére préparel ko dal préparel ko yooyu buur yi di takk peñe ko tusndal ko ba mu rafet mu jox leen affaire yi nag mu ne leen bismillah na fête bi commencé mu bàyyi ba ku nekk nga occupé ci li ngay def li ngay dagg mu daal di dugg ci rek mu daal di def benn signe mu ne leen génn leen Yusuf bi Yusuf ubbee rido yi taxaw ñoom jigéen ñi teewoon yépp ñu tàqalikoo ak seen xel lan lañ doon wax ñenn ci ñoom haasha lillahi ma hada bashar kii di du nit sell ñeel na yàlla kii du nit ñenn ñi naan in hada illa malakun karim kii de benn malaaka bu tedd la ñu yàlla wàcceel ñeneen ñi moom akbarnahu wa qataana aydiyahum na ñoom ñoo ngay xool di dagg seen loxo te yëguñu ne ñu ngi rendi seen bopp bu mu gisee ñëpp saalit nañ ñii dagg nañ seen loxo ñii naan kii du nit ñii naan kii malaaka la yëfi jaxasoo mu daal ne leen nii mu daal di tàccu ñu delloo Yuusuf ci biir néeg bi ñëpp nag delloo si seen xel ni ey ku nekk ni man de dagg naa man de sax dagg naa sama bopp kii ku nekk ngi wax nag mu daal leen déglu leen ñëpp déglu mu ne yéen de maa leen ëpp sago ndax man moom waxuma kii kii kii jinne la nekkuma fi naan jinne la nekkuma fi naan malaaka la nekkuma fi naan du nit dagguma sama loxo du da ngeen ma doon jëwee nag naan man bandi laa damaa dem ci sama jaam waaye yéen nag léegi li ngeen def lan la maanaam moom noonu la tëje gémmiñu jigéen ñi ku nekk ñibbeeg sa loxo bu ñu dagg bànd ko te sa jëkkër bu la nee lii lan la ñeme woo wax lan la kon waxoon nañ leen sànq inna kaydi kunna azim mu ne bañ ko séenee akbarnahu réyal nañ ko wa qataana aydiyahunna dagg nañ seeni loxo yëpp yóbbu nañ waa ji foo xam ne yeggu fa ñenn ñi naan wa ma zananna an yakuna misla hada fi bani adam ñun yaakaaruñu ne nit dina mel nii nit dina rafetee nii munu nekk ndax rafetaay bi waa ji rafet ñu dagg seeni loxo te yëguñu ne dagg nañ seeni loxo mu daal di génn nag ci moment boobu ni leen kii moo taxoon ngeen ngeen may yedd di ma xas moo taxoon ngeen teg sama der lu bon waaye day yéen ñii daanaka yéen xam ngeen ne maa leen ëpp sago ci yusuf qaalat fa zalikunna allazi lumtunnani bihi fiihi kii day taxoon ngeen may xas mi ngi nii ngeen ne man dama ko bëggoon ngir sama bopp yéen nag léegi yéen lan ngeen def tontu leen yéen a ngi ni toog tontu leen lan ngeen def daa foofu nag la ko yàlla nattoo mu setal yusuf nag leeral mi ba mu leer mu ne walaqad raawattuhu an nafsihi fastasama man maa ko doon sàkku man mii la man la du moom de loo amoon da ngeen yaakaar ne moom la du moom man mii la maa jóg def samay pere pour sëy ak moom mu daal di lànk moom imtanaa mu bañ waaye yowum foofu de xanaa affaire waroon na jeex wax naa leen ko sànq mu ne wala in lam yafal ma amuruhu la yusjannanna wala yakunanna min as-saaghirin bu deful li ma bëgg ah lii doy na waar de bu deful li ma bëgg la yusjannanna danañ ko tëj dafa waat laamul qasam laam bi laamul qasam la nun bi nunu tawkid giñ naa ne danañ ko tëj te dina bokk ci ñu ñu tuuti ñi dinaa ko tuutil ba mu tuuti ah fii bu doon yow la say mbokk dañ naan la non wala defal lool rek waaw xam nga kii moo la ëpp doole waaye xoole Yusuf lan la wax sunu borom bi mu xamee ne ndaw si caaxaanul waat na mu ne rabbi assijini ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asubbu ilayhinna wa akun min aljahilin yàlla ndaw si li may wax pour ma def ko kaso moo ma ko gënal dañ ma tëj kaso yow yàlla boo ma aarul protéger woo ma musaloo ma ndaw si du ma rëcc ci ay pexeem te su ma ci rëcculee dinaa nekk ak moom te su boobaa damay nekk ceddo akun min aljahilin gis ngeen ndeke ceddo dul ñun rek lañuy ñuy foog ceddo ay façon la yonent yàlla Moussa muslu na ci nekk ceddo yonent yàlla Muhammad muslu na ci ñedd nekk ceddo Yuusuf a ngi nii muslu na ci ceddo ci histoire Moussa lan la wax ana hufaasi xaafisi quraani yàlla wax na yonent yàlla Muhammad fasdaq ma tuumar wa arid anil jahilin li la yàlla yónni leeral ko du mooyul way réer yi ceddo yi loolu moo tax yoon bi tuddee abu jahlin abu jahl bàyyi ñu réer ñi suñ ne bàyyi ñu réer nit ñi dañuy jàpp ne kii jàngul aha kay ku jàng teg ci sa tànk di def lu la neex yow lañu war a wax jaahil moo tax Yusuf mu ne yow yàlla boo ma protégé wul dinaa sëy ak jigéen ñii asubbu ilayhinna dinaa nekk ak ñoom de parce que gis ngeen comme jigéen ñi dëkk bi yëpp dagg nañ seen loxo ngir man su ma rëccee ci kii moom ñeneen ñi du ma rëcc ci ñoom parce que ñëpp a koy topp mu ne yàlla kon nañ ma tëj kaso kaso moo ma gënal foofu la ko ndaw si tëjee ci kaso bi yemu ci waaye di joxe ndigal ñu ko fay fekk di ko toroxal di ko futti di ko dóor boole ko garde kaso yi di leen may xaalis ak yeneen natt yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala nettali nañ ko borom xam-xam yi leeralal ñu ko incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba dars bii di ñëwaat àllarba incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu